moom Mamadou moom Mamadou Ndiaye Doss waa comme ni nga ko waxee woon rek ma ne daal xam naa ne Abdoulaye Wade dana jàppale te daal bi kii ci juróom loolu moom du bokk ci li Abdoulaye Wade kon di wax tey ci texte yi nga xam ne kon for nañ ci tuuti la nga xam ne daal moom la Abdoulaye Wade wax fi mu nekk nee nag mooy wàllu résistance résistance bi nag bokk na ca maanaam xeex xeex bi nag moom lan lay xeex bokk na ca wàllum jeex corruption bi nga xam ne nee na Macky Sall kon moo ko indi ci réew mi réew mi alal ji nga xam ne kon Macky Sall ak wakaram dañu ko jël tax taxatee ko jël rakkam dénk ko ay poste de responsabilité jël ay mbokkam dénk leen réew mi loolu daal bokk na ci li nga xam ne kon moom la Abdoulaye Wade ci texte bi nga xam ne fi nekk ni ñu ngi waaj a def ab déclaration ak benn agence de communication woo xam ne nag ñi nag moom ak suñu naataango bi di muut baan moom nag euh, ñun ñoo fa ne euh, loolu daal xam naa ne ci gàttal Ablaye Wade bokk na ca la mu bëgg a wax daal na ci juróom-ñetti minutes yi woo Sénégalais yi ñu taxaw ndax wàllu démocratie bi nga xam ne Macky Sall delloo na ko ginnaaw waaye tamit yoruñ ko bon gi nga xam ne kon moom la Macky Sall kon yorug réew mi jël alalu réew mi dénk ko ay mbokkam jël alalu réew mi dénk ko tamit rakkam loolu moom da caa jaar mu nekk nag loo xam ne daal Abdoulaye Wade lii euh, moom la naqarlu tey lu jëm nag ci wàllum alliance ñoom moom fañ nekkoon ñoom waa PDS foofee la ñu nekk ba léegi mooy bu Karim Wade bokkulee ci élection yi élection kon am Sénégal maanaam si kaw gàttal mooy Abdoulaye Wade ñu ne waxagul ne damay jàppale Idrissa wala damay jàppale Ousmane Sonko wala damay jàppale Madické Niang wala damay jàppale Macky Sall wala damay jàppale nag maanaam euh, ki nga xam ni nag euh, moom mooy euh, Ousmane Sonko ak professeur Issa Sall moom daal benn jàppale daal ci kaw gàttal waxu ko ci déclaration bi nga xam ne moom la Sénégalais yëpp. doon xaar tey ne wàdd day joxe ndigal ne dina jàppale kii wala kële loolu moom yeggagu fa bu dee nag euh, kañ la ñibbi si comme ni nga ko laajee sànq mm-hmm. alxames dafa sëy ne ñibbi si ginnaaw tisbaar euh, dugg kon saan bi foofu ci aéroport international euh, Blaise Diagne bu dikkee nag ndax yeneen dana changé waa wala déet en tout cas fii ma taxaw ci këram bi de dama génn sax ci néeg yi ñëw taxaw nag fii ci fleur yi muy taw lii daal la ñu jàpp ne kon Ablaye Wade loolu la war a def nag tey jii lay déclaration te suba incha allahu la déclaration bi ak ci télévision yi ko jël séddale ko nag télévision yi nekkoon fii ci euh, Sénégal ak boo amul nag beneen laaj El Hadj Ahmed Aidara voilà El Hadj Ahmed Aidara laata euh, suñu la dégloo mooy président Abdoulaye Wade euh, li muy wax wax na ko ba noppi dañu koy def ci ay vidéo ngir mën koo séddale nit ñi soog ci jot wala dafa nekk déclaration boo xamante ni dañuy xaar ci kanam mu mu mu def ko waaw déclaration bi kay fi mu nekk nii ñu ngi koy waaj a mu ngi nii di ko waaj a def texte bi ci boppam nag euh, la ñu force tout ci loo xam ne kon war na ko war na ko def déclaration dañu ko bind en français dina ko def en français dina ko def tam en wolof waaye daal techniciens yi nga xam ne kon ñëw nañ ko xam ne nañu ne du passé juróom-ñetti minutes. Mm-hmm. du ko passé te benn avance euh, française moom moo nekk fii nii ak ñun ñii xanaa ñun ñoo leen rax ci loo xam ne daal war nañ ko fa def monté ko te nee nañu suba ci talaata ji dañ ko fas yéene séddale nag. lu jëm ci wàllu média yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir réew mi am na nag leneen lu bees loo xam ne tamit am na ci moom mooy xam nga Momadou euh, Mout Bane mi nga xam ne dafa defoon ak moom benn entretien téléphonique ci Dakar ci Dakar Times quotidien boobu mu xam ne ne Abdoulaye Wade nee na na ma dikke ñaa bàyyi di ko kokkali na ma dikke ñaa bàyyi di ko provoqué na ma dikke ñaa ba bàyyi di utiliser seen couleur parti bi ñu bëree bari ci waa PDS mais Abdoulaye Wade waxul loolu Dakar Times ñoom ñoo formanté loolu daal di koy sos par le biais des responsables libéraux maanaam du PDS loolu tamit euh, Ablaye Wade nee na tey dana ko leeral moo tax mu ne damaa bëgg mu baan toog nii ñu filmé ñu bu ko defee ñëpp xam ne loolu man maa ko waxoon xam naa loolu lu bees lay nekkate rek c'est politiquement tamit xam naa du nekk loo xam ne lu di arrangé maître Madické Niang la mhm. waaw euh, leneen li tamit mooy déclaration bi itam nekkul ne luy arrangé Macky Sall la muy ñaari déclaration yoo xam ne daal for nañ leen fi am na ñaari candidat yoo xam ne waxu Abdoulaye Wade yooyu daal jubluwu leen maanaam arrangé wu leen mooy Macky Sall ñu tuumaal nag yàq na réew ma te nag xeex dafa jot kon kooku moom wax nañ ne Abdoulaye Wade du ko jàppale Madické Niang mi mu wax ne koy kookali di di ko saboté na ko bax na ko bàyyi tout tranquillement kooku njortees nañ ne du ko jàppale kon nag léegi ñetti candidat moo fi des muy candidat Idrissa Seck candidat wu PUR professeur Issa Sall candidat Ousmane Sonko ndax Abdoulaye Wade bu ñëwee Sénégal ba nga xamante ni léegi nag carte gi leer na naañ PDS bokkatul ndax dana wax na ñett ñii daal danaa ci jàppale kenn loolu nag yeggaguñ fa ndax ñoom nee nañu moom jàppale guñ kenn seen candidat daal mooy Karim Wade te bu bokk leen ci élection yi Mamadou élection doo am Sénégal voilà loolu la wax kon mën nañoo jàpp ni bu dikkee alxames ci kàttanu suñu borom dafay sóobu ci campagne bi wala naka lay naka lay demee ndax for nga ci euh, ñooñee programme am euh, séjour kon ci Sénégal naka lay demee dañuy campagne seen campagne bi nag ñoom xam naa ne dafa uute ak campagne yi yeneen candidat yi yeneen candidat yi ñoom li ñuy campagne mooy au soir du du 24 février ñu siiwee leen wiiw gagné nañ ñoom juróom ñooñu waaye Abdoulaye Wade nag campagne am mooy au soir du scrutin du 24 février sànni xob bu mu am. kon tey ñaari campagne dafa mel ni moo am Sénégal juróomi candidat yi ñu ngay campagne pour falu Abdoulaye Wade moom campagne am mooy bu kenn falu bu élection am ci lu mooy sama doom ji Karim Wade di candidat au dafa bokk kon nag mu nekk loo xam ne xëy na bu demee nag bañ na mu dama dem na kën fi nekk nii xeex na muy bëgg waaye élection dina am ah xëy na bu boobaa mu wax wala bu ñu demee ba mu def semaine wala ñetti fan ba mu leer ko ne xeex bi day xeex na xeex xeex son dernier combat yàlla dogal wañ na loxo gars yi juge yi dellu ñu ginnaaw nguur gi organisé ne fi ñu nekkoon bu boobaa nag xëy na mu wax ne lii ak lii ak lii ak lii ak lii ak lii waaye daal moom mm. daal fii ñu taxaw ñii daal Mamadou Ndiaye Doss mooy mm. Ablaye Wade ne day jàppale kenn ni mu waxee nag tuddul turu waaye daal xam naa am na ci ñaari candidat yoo xam ne daal ah li mu wax daal dafa mel ni jubluwu leen ñoom ñett ñi des nag jublu na leen wala jubluwu leen nag loolu moom alaaji li ci kanam rek di gën. jaajëf kon El ñu ngi lay garder un repérage ci kanam incha allahu rabbi voilà ci kanam incha allah rabbi dinañu àndaat ak yow euh, ngir mën a xam kàddu yooyu le euh, naka lay euh, dox dale kon à tout moment et l'âge bu la neexee mën nga kon amee day dara bu la neexee mën nga jokkoo ak techniciens yi su ko defee ñu dugal la ci biir bloc bi wala boog itam ñu jël la nga mën ñu expliquer kàddu yooyu le kon ngeen ànd ak la chaîne leader Euh, Zig FM jaamu seen soxla ngir def seen bànneex ci ngeen gi anam mooy suñu yitte te it ci loole euh, la ñu ne euh, fukki million ak juróom